internet et wwwcefas du 6 senegalcom ou bien www.e-du6cefas.com. Nous sommes aussi dans les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et WhatsApp. Yeah. Uh -huh. E yeah. mën naa bu ma yow. koor koor koor gi moom xam naa ne am na lu ci doxal. Yeah. ko wen gi rëy man dama naan xam naa at jot rek ak yàlla lam cay lam cay wis. dafa dégg nag. ah day ànd bi. ah xam naa day ku ci amul ku ci amul cóol amoo mbëng-mbëng. Hmm. amoo tungu ne. Hmm. yow sa gémmiñ. ah moom daal xam naa ne daal ñaar dinaa la ko wax. Hmm. ngéwél yàqu na de bu njëkk géwél da daan ñaw. xool diggante bu bu bu ñagas mu rataxal ko deug la bu ñëk giwel dara boole bu ñëk giwel gënon do nobal giir waye legi dafa dafa taxso lol ba legi amna amna ah, mais dafa dafa am ñu leen rax ah, voilà ndax taggu mbar gi ñu ngi foom solo taggu mbar gi gaay taggu mbar ah. yow eh kuy kuy ufu nonu mbay dayan waye ba gëreum gëreum gëreum fa a ah, ñuy waxtaan nga nañ jóge fii tamit nag loolu foo ko teg. Oh, xool fii lu wax rek. Hmm. xool mel ni ku war naa xool kooku dafa métti. ah Ndaye. kër. génn ah, génn ah. génn dama dama fooy. bëgg dem fooy jëlee dama fii kër kër kër kër kii kër kër kër jaacaat. kër Mame Mame Touré. waaw waaw dem ñoom ñaar ñu am nañu galaas boo ci def na galaas. am yow xanaa woo. yow dinañ ko fajar fajar. naa ma ko lay de. ah. ak fan boobu bi dama ko xëcc ci nit du ma dara. ah. ku da nga amul ci moom yaakaar nag. ah. ni mu juddee ak ni mu lex yi mu génne woon ak ndombay bànn nag xewam xewam dix heures maa ba la woon. ba gars yi lalee sabari rek. Hmm. sàjji baara mbay ba jóg. moo tax yàlla yàlla du nit. billaay mais gis nga. Euh, mi tàgg mbaar. géwél yi bari dañ ko war a jàngiwaat. Mm. ndax gis nga kër mënoo faa dugg te jaaroo ci buntu kër gi. Hmm. waaye yoonu géwél tamit dafa am booy tëggum sabar. bu ne bërxëñit. ca mbaar. tàggu mbaar. patan. patan. Hmm.

tërn comme li ngay indi wurum run kin kin run na. du ma la topp du kuri dafa génne lu bees a bees. loolu lu mu gàttal du kuri dafa génne lu bees a bees. loolu lu mu gàttal ku moom lii waaye du kuri kin ku moom lii waaye du kuri kin rumbax du kuri yow nga yaakaar ne lii di nga naan ndox. rumbax xanaa xamul rumbax. si dënn lay jógee rumbax. tënd kii si bu rënd. kii si bu rënd mais sa ndigël mi ngi nangu ma nëgën ba léegi ah gerte weeru koor gi weeru koor gi waaw nga dëgg de waaye bi bi benn rek rundal kaatal rundal kaatal dundal kuujul gënal kaatal ay ku moom bi no gudu gi dal ku moom bi say da ay ay da ma dig cey cey cey korte waaye korte ni ma ko namme korité ah. ba ñu war a ñaani ndéw na nga toog maag tama ma téye la ak bëngo dama dama kii nga jàpp sa yoon di dem pataas mbaay def ko naan ko ko ko kës nga jàpp sa yoon di dem pataas mbaay def ko naan ko kës xoolal kii eh, moo gën yàqu dara moo gën lu tax loo gaaw gaaw xar ba taal xar ba laal bi nga jàpp sa gis nga xër. Perempuan kacal. Kelar pun dalam. Gitu loh. Kelar bodoh loh. Gigin kacal bodoh. Gin gin kacal. Salaamaaleykum yaa doon. waaw ñu ngi ci waxtaan waxtaan bi. wallaay wallaay wallaay jàmm wala mel noonu. waaw dama ne moom ngeen jàmm. sant la kay. Aliou Guède tey moom laa dem seet si fii di. Ah. ba xam ne wu fi. ah fi la ma tàggu. bu musul nekk kër ga de fii la daan ñëw moom. kon de xam naa ne. da ngeen dégg dégg. ñàkkul ne xam naa dafa génn rek. ah ah dafa génn rek xam naa. waaye nag maa ngi lay seen ngay sërxal de. waaw kon gis nga dégg nga kin doon cause bu. kin kin gëndal gëndal gëndal gëndal gëndal gëndal gëndal gëndal gëndal wuy yaa gëndal ba nga génnee. yaa yaa yaa daal soo daal soo daal yaa weeru koor gi xam nga. dëgg la nag eh yàqu lu ma dara ay ay waa. solo rek solo rek solo solo solo yàlla ah ah gëndal gëndal waaw géwél wul ba kii kii kii kii man kuy sax man kenn ci kii la sax gis taas ba ah wula wula gis taxaw taxaw jëlal mais yéen gis bu rën gis rën ba gindal gis bu rën gis gindal gindal ah bu rën gis bu rën gis bu rën dégg li li li waa amul énergie doo ko def déedéet déedéet sama ko ko mënuma ko duma def yaram laay defee gis bu rën ah ah yes waaw yaa yaa yaa yaa am na am na loo doon def ay jamono. ci koñ bi fii. waaw waaw ci ci ci daa nga ko def ci lëmbal lu rëy. waaw xool kenn ku nekk kat. sa kaas bu rëy sa kaas bu rëy sa kaas bu rëy sa kaas bu rëy sa kaas bu rëy sa kaas kay na continuer waay fi ngeen ko téye foofu la de. bu rëy mu mu dégg nga mu rëcc. eh waay. daa mel ni dégguma ñuy noonu. lii la la. te war ngaa fay fay ñëw fii daanu fii lëmbale. da ngay ñaari njaaru rek. mình mình mình vô rồi đập trong nan nan nan waajal waxtu bi waaye waxtu bi daf leen jënd de man daal taxoon na fee. naka ma waajal waxtu bi. voilà xam nga daal ah. xam nga laa soxla voilà. waaw Kaare ma laa soxla. dama soxla moom la ko. Kaare ma lan laa bëgg. waaw xew maa ngi bëri ma dama bëgg ñu dem Saalum lan mari lan mari ñu ànd rek ñu wax naa ko ñaan ko moom maanaam gendarmerie de taxaw na tamit nag kaara rek naaka rek ñu doon waaye xolo ba fa xuloo yuuxoo xeexuma xoolal ba bokk ñu dox tànk ak tànk ñu dem gendarmerie comme fekkante ne yéen yéen yéen digg dama fa tëgg weeru koor ngeen nekk di lëmmal lëmmal ngeen lëmmal damay damay damay kii non dañuy wax ak moom de waaye lay wax ak moom yow maay wax ak yow dégloo ko ngay wax ak keneen fii yéen war ngeen a ili mel bi ba fii ne di ko lëmbaloo. dama ko iri sa bàyyi la seet. moo ñëwul boppam fekk ni su gaam ñuy doomi giwal ñëwul boppam ëtt giwal la. Eh, amul droit waxtaan waxtaanu giwal. Eh, man kenn iri wu ma de man sa papa laa dem seet. kay wax day leer. waaw mm, hmm? mm, mm. oh, man dugg de jantal paa laal mais bi laa eh, yow. xoolal ba xool bi boo changé boo changé avis ci man yàq sama. non mais yow yow yow war ngaa woo yow dañoo indi meel fii di ko lëmbaloo fii. léegi la ngeen jublu. ah ñu ngi jiwoon lañu xanaa woo la nag. kenn kenn kenn kenn gis. ma ah kenn nag kàcc. allez sawaay sawaay sawaay sawaay sawaay sawaay sawaay xoolal man man man man dañoo koy man patas patas gamra noppi yow xam dëgg jam la. dama la dégg waaye jam la. maa ko teel la. waay waay ju. i ma teel la. waaw man ma daal. i ma teel la. saa yi lu may teel. fii la woo la la waaw kay gaaw boo ko déggee ci ëttu ngéwal foo dem te ku ne am na lay daane am na koo xam sax gàllaaj ñun sax gàllaaj dañ koo xam siri bi bi rabati babara ay bay ko bay ko mais woy woy woy ko man de bo mo de wuy kii ngeen ne. dama lay jiital dama lay jiital ak ay xiir ba kël ko. déedéet donc xaaral gaaw da ngeen fi def. Eh. baax naa leen ko. alhamdulilah man jàpp naa waaye lëmbal gi mu bàyyi seen kël ko fay kii mosul lëmbalal sa mbaam. ñëw ñëw leen fii di leen lëmbalal loolu laa xamul fu la. yow mosul lëmbalal gi de. mosul ko lëmbalal sa mbaam ba sa waay. tey jii jiital ñu naan. dama dama xam ma wax. dama man de waaye demal waaye. yow tamit demal li mu la a kii xam na li mu Viens, viens là. Eh, eh, eh. Voilà. Demain il l'aime. Eh, eh, eh. Eh. Voilà. Yo. Nah, follow again, man. Good. Good. Ah!

xanaa ñànk yow xanaa gisoo ñànk yow boo xamoon ñànk